tal leen ak jàmm mbokk internet yi jàmm ji ma leen yéene moo dox jamono ji ci diggante kile di Thione Seck ak Assane ñi nga xamante ne seen diggante ñoom ñaar ay ñagas-ñagas da cee amoon tey ji bépp ñàkk déggoo bu xewoon ci seen diggante woneeku na ñaar ñi le juboo nañu ginnaaw ay jàmm Thione Seck ak Assane Ndiaye di àndandoo ginnaaw bi nga xamante ne jot nañoo taqalikoo ñoom ñaar ci ay at yu baree bari bi nga xamante ne ci la asanjaay Ndiaye daal di jógee Ramadan dem créer groupe boppam boobule yoonu boppam bu mu xàllaloon boppam taxoon na ba Thione Seck jàpp ne ab beddeeku la mere woon ko ci ba mu juróon fi ay coow ci seen diggante ñoom ñaar loolee tax na ay at yu bari ñoom ñaar ñi de daawuñu laale ñàkk laale boobu nekkoon lu métti woon lool seen i jege ñaale ba ku nekk di ci wax ci fàttali ñoom ñaar ñoo lee jote woon nañ fi jote bu métti ba ku nekk mere sa morom lool waaye sax daanaka mer mi kat ci Thione Seck la mujjee ndax daanaka bi ñu ko fi jàppee sax yóbbu woon ko ko Assane Ndiaye ba mu fa ñëwee di ko seet si daf ko wan ginnaaw loolu lee nekkoon lu ñaaw lu ñu ñaaw itam ñu bëri jotoon cee dox ay jéego ngir jëm leen a jubale waaye mujjul sotti ki sottal mbir mi nag mooy mooy kilee di oustaz Iran Ndao ak kenn ci doomu Thione Seck yi di wuyoo ci turu faatu bintu ñoom ñaar ñooñu lee ñoo dox googule juboo fexe ba dajalee Thione Seck ak Assane Ndiaye ci benn table ngir ñu waxtaan boobu boobule waxtaan moo jur jàmm gi xew ci seen diggante ñoom ñaar tey waaye teewul ba tey ñu samp ab laaj ci Thione Seck mi ndax di laaj ndax moom dafa naqari deret lool moom moo tax ba mënul juboo ak ñi nga xamante ne ay frèram lañu nii ma pend Seck Ousmane Seck ak Assane Ndiaye mii mu mujje jubal waaye ci boobule laaj Thione Seck di ci tontu tontu bu am solo di xam la rek ne dëgg-dëgg sax ne moom day jot na di am ak problème ak ñenn ci ay frère am waaye li ko waral mooy kenn ku nekk ci ñoom dafa bëggoon a nekk xalifu kër gi te moom mooy xalif bi lii la waraloon mu indi ay xeexoo ak xuloo ci seen diggante ñoom ñëpp moom Thione Seck mooy kilifa gi moo fi nekk te fekk mi ngi dund des ak bakkanam moom moo koy doon waaye ba tey moom Thione Seck mi ngi xam la ne mbir mi maanaam jàpp ñàkk jubóo xew ci digganteem ak yi ci ay frère am ku ci mel ni lu mu métti métti doomu aadama yi moom mii di frère la gën a métti lool ndax kile di Assane Ndiaye dafa sosoon rëkk ci moom mu jàppee woon ko comme frère bi nga xamante ne nii dafa bokk ak moom ndey ak baay yéene ko lu ne lim ko meree kay naam mooy ne dafa beru dem mbir dafa beru dem sos mbiru boppam te moom mii di Thione Seck yëgul la dafa buggoon na kile di Assane Ndiaye xaar rek ba moom mii di Thione Seck di ko yeewi beral ko daaraam ngir mu mën a nekk di jàngale mu mel ni ñàkk xaar boobu boobulee digal moo waral ba Thione Seck daal di mere kile di Assane Ndiaye donte sax ne mi ngi wax ne mu ngi doon wëy comme moom jàpp ne moo ko waroon a mën a ndax ni muy wëyee moom Thione noonu lay la Assane Ndiaye di wëyee ñoom ñaar ñoo bokki feeling waaye tey jii nañu sant yàlla ndax mën nañu jàpp ne coow loolu xewoon ci seen diggante jàll na seen ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddum Thione lépp fàtte na ko te leneen li ci kanam rek moo leen soxal soirée anniversaire fële ci grand théâtre dafa jële con sec mile di magam rek daal koy def invité d'honneur ànd ak loolu daal koy euh, boole ca parrain ya lu ci mënti am ñoom ñaar ñi juboo nañ ci juboo bu am solo te rafet lool di ñaan yàlla yàlla dëgëral seen diggante ba li fi jot a xew bu mu fi amaat lii tubaab naan tout est bien qui finit bien jàmm daal a gën ay yàlla na jàmm yàgg jërë ngeen jëf